soxna ma fetfetaal foofu. fetaaw xanaa du sarax rek. eh eh indi la ma fetfetaal ah indi eh. am booy yow tamit bàyyi sa yi ngay def. eh jox ma soxna ma fetfetaal yow ñaar béy jëli laa wax rek. nga eh, jox ma béjjën sa yi ngay def. teel ah, voilà télé bi. ma ni sa yi ngay def moo tax ma daw. teel waaw teel teel am am am waaw. da da nga dëgg bopp. si sarax rek la. waaw waaw si sarax la. yàlla. Jangan, jangan, jangan. Biarlah, Pong. Mana, mana, mana? Pong. Jangan. Jangan. Mati, mati, jangan. Ay, nyang. Sokan gede. Papa, masa. Tay laa ko indi na ku dem safu safu ko. Kala laa la ko. Jëla jëla. Jël. Eh, jëla la ni. oh oh dama bokk du eh. tegal yow eh. tegal yow tegal yow. yow yaa waxu ba mayi ko. yow yow waxu ma sa jaay. eh oh nekk ah kamu nga. faamu ne rek du faamu. xam nga li yow tax xam nga li laa doon eh. tegal tegal yow mi tegal tegal mu fon tegal tegal tegal tegal nokku ko yow yow nokku ko wala la dégg nokku ko nokku ko ah dégg nga yow wala la dégg. mun nga la baax yow wala la tax não, leew. não, ci não, eh não booy não, fadoo. não, kii não, mu não, lu não, wax não, eh não, toi não, Voie. não, war não, tëlee não, la não, xoolal não, moo não, fadoo. não, ma não, bu não, yablu não, koñ não, ba não, lay não, les não, gi não, jëlaat não, bul não é, não, bul não, ku não, gi não, mais não, baaraam não, bëgg não, dee. ñu lay toog mu tàgg fii. très bien très bien. loolu boo xoolee amoon ñus la. kon ay ñus la. nekkal ak nit waaye nekkal ak nit waaye ah. yow yow nit rek la nga yow yow doo nekkal ni ah. gangi mo mami oh yet yet di kam wala oh oh na ma eh da nga jël ndeysaan ndeysaan rek ina def ndeysaan ah tang nga xol li sa na sama xol mi bax ah rew ma tay waaye yéen nii ngeen nar a eh, film Amore, amore. eh arrêté jeex na bëgg gi ma bëgg kii moom laa lay gis nga sama yaay moom ma ko jox Aïssa Diop kenn du moom ci man. sama yoon nekk ci Aïssa Diop. waaye moom nu demee nii ay te loo ci xamul nag du téléphone coomo de kooku bu may may piir la may may iPhone la ma laal. waaye na nekk ay dox nga ma ay iPhone. waaye moom mer nga di. ay waaw baax na baax na. amoore. souffleur booy wax ba am lii da war a mën a noppi gis nga lii. dañ koo yëkkati jox ma ko. kii xam ki dara kii léegi mu dool ko jëndee ka kees. garaawul. maa tey yow sa xol bi dafa tàng dama lay di faal dama la formation deux acteurs cœur. defalu ma. yaa xam. eh. bu ko faale bu ko faale defal. man kay mi ngi may lóore sëgal sëgal sëgal. te farma nga xam ne addina yëpp mu doog tool nga am ay defal ay <laughs> ay formation mer na de. xol xol bi. moom ak kii lu lii nu mu demee nii. ngay mel ni kamu. papa Massa. day day day day ba fu kër gi dafa ñëw foofu naan donc wàññeeku woon ci benn naan ni ku ne ma yàlla ma jox ko 100 francs mu nekk nag yaa ngi dem waaye bu fay Sina noo dee indi ma sama xaalis tax saa mu ne ma waaw ma toog di xaar bàyyi Sina noddu ñu ñu ñu laa waa jumaa daa leen julli avance ñi fi Sina ñi fi ñëpp ba mu ni ko woon gis na waaye bi ma ko gisee. ma jàpp ko lim wala ko ay yàlla moo la xam naka yow man gisuma yàlla yow nga ne man yow ay yàlla moo la waaw noonu la ah man sama xaay lekku de boobu man kay nekk loolu waay kii xëy sa ma añ waay. comment. waaw waaw xam naa ko da woon. te te te toog ma añ bi xoolal tey nag na ko njëkk ah. añ amu fi yow xamoo fan si ma xam dëkk ma dem nangu sama mango bi ah. yow xaw ma ko bàyyi ma waay. bu nu mu des amul foofa